Oh, bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. fat fat ngi noonu ndeysaan adversaire de Bébé Liss xale yi nee naa lamb xale la tey Bamba Milano Thank maa li nga signature keroog bi nga ba sina ngi noonu ah noonu waa gis nga gis nga borom sina borom yaa ngi nii nag keroog bi dafa ñu bëgg signature ndeysaan waaye dafa mooy dugg si nee de ñu signature bi yëpp daan moo ñëw ni mel adversaire am ah. nekk ci ginnaaw de ah bébé Liss fat fat tey combat man nee naa combat bi mooy sama combat préféré te nee naa damaa waroon dem ay gàmmu gisoo ni li ma solo nii. Ah, gàmmu laa waroon a dem. waaye combat bi moo tax ma ñëw. jël ko ba pare soo a dem. ndeysaan turandoo jaa ngi noonu Aliou Fat moo koy indi. waaw waaw. jëlal dugg si waaw jol ko jëlal ma xale bi xale yi nee naa la ay xale leen waaye dañoo jékki ci bëre ndeysaan bébé fat fat a ngi noonu adversaire de bébé lis bébé nee na may borom bal bi lamb ji may lamb borom bal waaye cubukaay yaa ngi noonu ngay seen ndeysaan nga gis waaye dafa mel ne adversaire am laay seen ci buntu moom Pépé Liss combat bi nee mooy sama combat préféré xale yaa ngi noonu di jël bagage yi di jël di dugg ci biir ndeysaan Aliou Fat Fat a ko indi torondoo ngi noonu ngay seen ndeysaan waaye Pépé Liss nee moom turandoo la soxla tey Ali Fat a ngi noonu daal tamit moom tamit yegsi na a ngi noonu Lac Rose a ngi noonu moo indi Bébé Liss Alaaji Paate ndeysaan Lac a ngi noonu mooy indi Bébé jóge Alaaji Paate nee naa la combat bi combat bi du yomb waaye maa ngi dem ci buntu ba dem jëli Bébé Liss waaw jëlal ma loolu xale baa ngi noonu ah. Bébé noonu adversaire de Bébé Fat Fat bii combat ñu naan pro signature nañ ko signature bu neex. ñu ngi noonu di dugg si ñun ñaa ñoo duggoon doon ndeysaan mi ngi noonu bagage yaa di jël di yóbbu Lac Rose a ngi noonu doomu Kër Massar doomu Alaaji Paate baylaat maa lay ziar ziar di la bëggee maa ngi ci kawam te ñaa laa gis maa ay noonu la te nee la bi na journée Bamba Milano la lamb xale la tëgg tey man combat bi nee naa mooy sama combat préféré moo fi indi ci stade bi. waaw Bébé Liss a ngi noonu ñu ngi noonu yor karkaar bu ko taalal. saan bagage yaa ngi noonu di dugg par benn nga loolu bébé Lissa ngi newoon ci biir yor berkaar bu weex mu wóole ko ko moom lay dugg ci moo koy utal ker lisaan benn léeg dugg ci ndox ma waaw waaw na ko ndeysaan ci tànk ndeyjoor ba xale yi nee naa na dañuy làmb ndeysaan ma ngay xëppoo di ma loolu jëlal ma loolu ba léegi Bébé Liss ba léegi duggagul loolu daan Lac Rose noonu ñoo di wax rakam frère am Émilis daan mbër noonu xool ko yanu na comme yanu na la sayu dugub bi ndeysaan waaw Bébé Liss borom combat bi combat bali la nee na bali la waaye adversaire am ngi doon jëm di génne moom Bébé Fat Fat dugg si Onda Lick Bébé Liss moom rafet wala ma ngay arrière moom yàndoon na ko te xale yi nee naa la dañuy làmb yàndoon na ko ndox mi wàcc ci kawam waaw waaw ndox maa ci kawam mais gars yaa ngay dugal bagage tey làmb xale léegi ndeysaan mi ngi noonu moom Bébé Liss ndeysaan jëlal ma loolu nga yaa ngi roj bagage di yóbbu ndeysaan Lac Rose gi noonu ñoo di waxee rakkam bu la conseillé ni ku la jiitu ci lëndëm moo la a wax fi ngay toogee ay xale lañu ñu leen jiitu ci làmb ñoom ñoo leen a waaw toj na ko daa ilaaha illallaahu kii doon na tànk ndeyjooram dugg ndeysaan waaw waaw bébé ngi noonu dugg na